ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew walla wala bitim réew. dégg lépp loo xam ne rek dafay jóge ci mbindeef jëm ci boromam su ko defee ci ixlaas ci ngay amee li ñuy wax rafetal jëmale ci sa borom ndax rafetal. bu fekkee ni da ngay rafetal jëmale ci sa borom di rafetal jëmale ci nit ñi mooy lépp li ngay def rek nga jël yàlla témoin dégg nga an taxbudullah ka annaka taraaw nga jaamu yàlla ba mel ni yàlla mu ngi lay gis fay lim takun taraaw fay noo su fekkee ni mënoo mel ni yow yàlla mu ngi lay gis waaye na xam ne yàlla mu ngi lay gis ndax pour nga yegg ci étape boo xam ne ni fi ngay jaamoo yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla suñu borom da ngay mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak moom di ko foglu boobu beneen dimension la dimension boobu nag mooy dimension bi nga xam ne sa xol bi lépp lii kiiraay dañ na ci nga xam ne am nga taxliya am nga li ñuy wax taxliya boo amee taxliya nga xam ne raxas nga sa ndabu xol ba mu set raxas nga sa ndabu xol ba mu set wicc wicc wicc ba am tasfiya bu ko defee faydu la waa di sotteeku si sa xol faydu la waa mooy du dara mooy leer su yërmaane suñu borom gi nga xam ne mooy ñiital jaam bi fi mu jëm tey ak ëllëg su ko fee muy sotteeku sa xol na muy sotteekoo sa xol nag ak li koy andi mooy jaamu gi ngay jaamu sa borom te di ko sellal tey jii ki nga xam ne am na ñoo xam ñu ngi jaamu seen borom di julli jàng nañ téeméeru kaamil jàng nañ fukki kaamil jàng nañ ñaar téeméeri kaamil julli nañ ñaari rakkan julli nañ junniy rakkan yëpp di lim mu mel ni doomu aadama dafa ñëw si euh, lim lim te yàlla amul lim déedéet suñ borom dara jëmul ci moom rëy ci moom ba yaatu ci moom ba am lim buñ ko mën a tënk woykatu arab def ne anazun alfun kalwaahid ne nit ñi comme junni nit comme benn ci yàlla waaye benn ci yàlla benn ci doomu aadama yi comme junniy nit léegi nag nga gis jaamu yàlla yu bari waaw wàccee nañ fi junni kaamil te nit ki mën na wàcce junni kaamil kenn ki jàng benn aaya alquranul karim wala sax di waxuma aay waaye benn baat baat bi domine fa yàlla subhaanahu wa taala mu nekk fa ay milliards milliards yi kaamil li ko def mooy li muy def daf ci def li ñuy wax al ixlaas daf ko def ngir yàlla rek amul dara ngistal te tamit maa ngi moytuloo doomu aadama yi di jëf di lim sa jëf ndax ki ngay limal sa jëf jëf ji fekkee bi nga jëf yàlla rek a tax comme parfois nga gis ko ci garab groupe whatsapp yi wala ci kër yi diw jàngal nañ ko téeméeri kaamil am na ku nekk foofu mun ne téeméeri kaamil noonu kii ne diwri junne kaamil ñuy commencé dugg si alxaq mu takkaasuru xatta sotumul maqaabira commencé nga xam ne yow njëkkoon yéeféer yi dañ daan puukurwante ba seen bàmmeel yi sax maa la ëppale waaye naka noonu tamit da nga gis ñi puukurwante si diina ji diw jàngal nañ ko junne kaamil sëriñ diw jàngal ko su ko defee ëppalante bi ak puukurwante boobu day commencé andi li ñuy wax maanaam ak beew ndax da ngay yëg yow doomu aadama bi sa mën ak sa def ak sa góor góorgóorlu te waxtu woo yëgee ci sa bopp dara bis boo yëgee ci li ngay defal yàlla bis boo ci yëgee sa bopp kem tarafatal ay ni su fekkee ci xaarif billaahi sufiyankii la bu fekkoon sa roowu mu ngi pénétré di dem di dagg mboolem ijaab waxtu woo demee ba jub pay bi keroog bis ba nga xam ne ni yëg nga kem tarafatal ay lu mel ni mis xaala sarrateen kem pepp sarra sarra mooy li li li li ñuy wax atome maanaam loo xam ni appareil bi gën gën a sophistique moo ko mën a génne mais nit mënu ko gis boo ko jëfee ci lu tool noonu ci ci yëg sa bopp dinañ la delloo ngay egg suma radat naa asfala saafilin donc doomu aadama yi jullit yi ñu ngi leen di dénk maanaaw ixlaas bàyyi seen xel ci jaamu yàlla gi ngeen di jaamu seen borom xam ne jaamu gi daal euh, sell rek ak jubal la nekk na ci njëriñal ixlaas bii wusulul abdilil ixlaas jaam jaam bi nga xam te ni dafa gëm boromam gëm yàlla bu fekkente ni bëgg na jot ci boromam dina sellal jëfam sellalee ko tawxiid doylu màndu jàpp wóolu te lépp nga teg ko te yàlla rekk tax tey jii nii bu ñu xoolee fi jamono tollu ak actualité li mënuñ ci bañ a wax donte le temps bi duñu ko may waaye ñi wax si li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne dal na ci dëkk bi dal ci réew mi dal ci àdduna bi loolu tey jii nii ku mu yeewul dara du la yee ndax ñépp ñu ngi toog seen kër waaw ñu bëri ñu ngi toog seen kër dafa ne moo leen muccal ñu bëri ñu ngi takk ay masque dafa ne moo leen ñu bëri ñu ngi raxasu dafa ne moo leen muccal waa loolu ki nga xam ne nii mooy suñu borom mi nga xam ne moo ñu bind di subhanahu wa taala nga xam ne lu mu namm ci jaamam mooy am mu ni moom de yonent bi lim ñu jàngal lii balaa la waaye balaa bu ñëwee yéen na ngeen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun de jógee nañ ci yàlla te dell nañ ci yàlla loolu mooy lan masque bi nga takk zaahiran si sa gémmiñ gi mu taf sa gémmiñ taf sa bakkan waaye nanga ko takkee noonu sa xol bi ni nga fattee sa làmmañ fatt sa gémmiñ na fatt sa làmmañ bi ci deru góor yi waaw sa xol bi gis nga lépp luy zaahir rek mooy baatin raxasu gi nga xam ne yaa ngi koy raxasu moo xam ko euh, saabu la moo xam alcool la moo xam loo mënti raxasoo ba njort ne dina microbe loolu mooy tuub gi nga xam ne suñu borom digal nañu ko ñu raxas génn ci lépp lu bon génnee suñu xol jéem a raxas suñu xol yi ni ngi raxasee jëmm ji loxo bi ba mu set ba mën a rey microbe bi antibactéries yooyu noonu la amee tamit ay antibactéries yoo xam ne nii ci xol la jëm yoo xam ne day laabal xol muccal xol leeral xol ba nga xam ne nii yow di nga mën a tàggoog lépp loo xam suñu borom ko lan alquranul karim hadis sunna si muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak jëfi mag ñu baax ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ba yàlla gërëm leen xam nga dajale mboolem téere xam-xam yi jàng ko xam ko te yàlla gërëmut ko da nga gis xale bu ndaw di toog di contredire mag moo xam dafa jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko defal ko fathul akbar jox ko leer yow nga toog ci dajale bibliothèque boo xam ne nii kum neex mu dem xool bibliothèque bu gën a mag mu jël fi benn téere ci langue bu mu ko bu mu bëgg bibliothèque boobu traduire nañ ko ci mu jàng ko yem ak yow waaye est-ce que loolu mooy maqsad bi déedéet maqsatu xam-xam lan la mooy jëfandikoo wa niyetul istixmaal wara waaw moom nga sàkk ko jëfandikoo loolu lañ santaane waaye nekkul xam rek jëmmi xam-xam rek teg ne am naa xam-xam kon nag mag ñi nga xamante ni tey jii dañoo tënku woon ci diina tënku si xaqiqa tënku ci sunna si Muhammad Rasulullah ba yàlla jox leen fatxul akbar jox leen leer ñooñu seen taxawaay ci diina lañ doon def ñun tey jii nañ am taxawaay boobu noonu taxawaay boobu nag niñ koy amee mooy xam ak xàmmee ak ràññee ndax jëmmi xam-xam comme ni ma ko waxee rek nekkul mooy li nga xam ne mooy sunu jubluwaay kon tey jii nii daal euh, baax na ñu ngi raxasu ni ñuy raxasu zaayiran mu set ñuy takkee masque saayir ak ni ñu koy dawee toog gi ñu toog suñu kër yi loolu yëpp axlu tasawuf jàngal nañ ñu ko noppi ak sumtu wa jox na ngeen noppi tëj seen làmmañ yi waa takk leen seen masque waaye da nga takk nga sa masque noppi nga waxoo waaye sa xol bi sa làmmañ yi mucc mucc ci deri góor yi yàkkamti nga nit am lu baax nga toog fee di ko sabote wala di seet nooy dagaanee nan ngay waxee ba loolu yàqu loolu kooku takkul masque léegi nag bu balaa ñëwee ala kulli xaal euh, mën na daal ci sa kaw kon nag lii zaahir la mooy baatin te balaa nag su ñëwee li ko fiy jëlee mooy tuub ak jéggulu ndax yàlla dafa ar dafa wax ci Alxuraan ne wa maa kaana laahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa maa kaana laahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun yow Muhammad de feeg yaa ngi seen biir du duma la mbugal waaye duma leen buggal ñoom sa xeet waaye yow Muhammad boo nekkul seen biir feeg ñu ngi may tooñ dama jéggulu du ma leen buggal kon nag ñu ñëpp jéggulu suñu borom istaghfiru rabbakum inna laa kaana ghafaara rahima jéggulu leen seen borom ndax yàlla nekk na ko xam ne ku jéggalaakoon la ku yëramaakoon la naka lañuy ñuy nag mooy tuub dellu suñu borom bàyyi xel ne suñu àdduna bi yàggut te mënta yàgg te inna wax dalay laay xàqun naka dëgg yàlla bi dëgg la falaa fala taqaronakum xayaata dunia wala yaqurnakum billaahi qurur dund àdduna bi bu mu leen lu xor bu ëllëgee ngeen woru kon nag ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñooñu dalaloon di Farokh TV ci waxtaan bi su ngeen bëggee topp Serigne Bassirou Kéemaan ibnu Cheikh Sidi Laaji Omar Ndaw ibnu Cheikh Cheikh Mamadou Tayiru Ndaw ibnu Cheikh Sidi Laaji Omar Ndaw na ngeen suivre euh, Farokh TV incha allahu rabbi din duñ dañ di ñëw ci barab bi di leen bégal ci alquran di leen béggal ci addis di waar ci alquran di waar ci addis waaye di leen bégal ci mbindum Seydi El Hadji Omar Ndaw jërëjëf Mawlana Cheikh Seydi El Hadji Omar Ndaw wasalaamaaleykum wa ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam booleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew